mbokk yi incha allah ñu ngi war a jël tey ay cent vingt huit ci suuratu nisa wa nimraatun xaafat min baaliha nushuzan aw iraada mbokk ñu ngi sant suñu boroom subhanahu wa taala ci xéewal gim ñu defal ñu ngi daje ci am néegam fas yéene jàng ab téeréem loolu nekk ci biir weeru koor muy ngëneel ci biir ngëneel yal na yàlla bindal ñu lépp lum ci diggee ca làmmiñu yonentam yal nañu yàlla boole képp ku ko nar a dégg ak foo mën nekk ci kaw suuf ak mbokk yi nga xam ne ñoo leen koy jottali la nga xam ne moom mooy gërëmam ak afiyam kon comme ni ngeen ko xamee ñu ngi dugg suñu ñaareelu semaine ci shahru ramadan tey di nekk juróom-ñetteelu fan ci kooruk 1444 di tombeeg la 30 ci mars te na nga xamee ne nii mooy 2023 kon incha allah bu Cheikh Ousmane pare mu jëlal ñu suñu bind bu njëkk
وإن امرأة خافت من بعدها نشوزا أو إعراضا فلا جناح عليهما فلا جناح عليهما أن يصلحا بينهما صلحا والصلح خير وأحضرت الأنفس الشح وإن تحسنوا وتتقوا فإن الله كان بما تعملون خبيراً ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم فلا تميلوا كل الميل فتذروها كالمعلقة وإن تصلحوا وتتقوا فإن إن الله كان غفورا رحيما وإن يتفرقا يغني الله كلا من سعته وكان الله واسعا حكيما بارك الله فيكم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم suñu boroom jalla wa ala mu ni wa nimraatun xaafat min baaliha su dee kenn ci soxna yi daa ragal ca boroom këram ba nushuzan aw iraada ak yëkkatiku walla ak dummóoyu woon ko gannaaw fala junaha alayhima su boobaa day duñu am benn gànte ca ñoom ñaar an yusliha baynahuma sulha ci ñu yéwénal seen diggante ak yéwénal wa sulhu xayr yéwéndoo day yiw rek la wa uhdirat al anfusu shuh dana teewe lii di bakkan ya ak xir ay mooy ak nay wa in tuhsinu wa tattaqu waaye su ngeen rafetalee te ragal yàlla fa inna allaha kaana bima taamaluuna xabira yàlla day nekk na li ngeen di def ku ci ñàkk kumpa walam tastatiu an taadilu bayna nisa du ngeen am kattan mukk ci maandu diggante ca soxna ya ay di leen yemele walaw xarastum ak lu ngeen xir xir ci loolu fala tamiilu kulla almayl ewaay bu leen jeng gépp ak jeng fa tazaruha kal muallaqa ka ngeen jeng ba ko ngeen bàyyi ko mu mel ne lu ñu wékk rek wa in tuslihu wa tattaqu waaye su ngeen yéwénalee ngeen ragal yàlla fa inna allaha kaana ghafuran rahima sa borom yàlla day nekk na koy jéggalaate ko yërëmaate wa in yatafarraqa suñ demee yit ba teqalikoo yughni llahu kullam min saati yàlla képp ca ñoom ñaar dana ko woomalal ca yaatoom ga wa kaana allahu waasi'an hakima sa borom yàlla mooy aji yaaja aji xereñe ja mi ngi noonu koy atte lu ko neex bokk gis nañu ne saar bi ñuy tiim mooy suuratu nisaa di saar boo xam ne dafa ñëw ngir delloo jigéen lu ëpp ci ay àq yu ko société yi daan xañ bokk na luñ jàngoon te njëlbeenu saar wa mooy jigéen ji nga xam ne dafa xëy xëy génne tànk bukki comme niñ koy waxee bëgg a jéggi dayoo fan la l'islam wax ñu jaar fa ak moom bu dee ndeyu taye heure bu ñu gisee seen soxna jaarul fa leen neex dañuy xëy rek football mu dem amma l'islam ne déedéet walati taxaafuuna nushuzahunna fa izuhunna wahjuruhunna fi lmadaji wadribuhunna mi ngi noonu ba aaya ba jeex mu ne soxna si day su ngeen gisee ni fa ko yàlla féete la ci soxna moom nanguwoon loolu dafa bëgg a taxaw sa kanam su boobaa suñu borom mu ne waar leen ko su waaraate bi jëriñul na ngeen ko won gannaaw ci lal bi même loolu bu doon duré quatre mois su amul njëriñ su dee gox bu ñu mën a duma jigéen mu jubbante ko duma leen ko su dee ne loolu amul nañ woo ci ndimbal ci famille ak famille ko góor ka amma kaa bi ñuy jàng tey moom waa ji moo yor soxnaam daa di yëkkati ko ci kawam ay bëgg koo teg loo xam ne nii jaaduwut mi ngi noonu lu romb kilifteef ba yàlla yemele borom kër moom mu bëgg koo teg loo xam ne moom jéggi na loolu soxna si dem ba yëg loolu wala soxna si boppam yëg ne sama waa ji kat ci tànk fasama la nekk su boobaa suñu borom yàlla ne ah dara nekkul ci ñoom ñu yéwéndoo la nga xam ne mooy ak yéwéndoo mbokk yéwéndoo googu soxna si def ak borom këram mën na nekk ci lu bari am na waajoo xam ne la tax mu bëgg laa fase mooy charge yam yam la yoral looloo ko neexatul su ko defee soxna si mën naa yéwén ak moom ci ne ko waaw bu dee ne cent mille yi nga may jox daa dis ci yow dee ma jox cinquante mille rek man danaa débrouiller wala boog cinquante mille yi nga ma jox daa dis ci yow bàyyi ko man danaa jéem a débrouiller la sama bopp soxna si bàyyi intérêt boobu ngir sauver sëyam wala waa ji aay ya muy aay ci moom moo ko sonal nga ne ko déedéet bu dee loolu am na man teggil naa la loolu heure bu la ko yàlla yombalale rek na nga ñëw ci man ak yu deme noonu suñu borom nag subhanahu wa taala nee na li nga xam ne mooy asulhu xayr ay yéen way dencente yi ngeen am jafe-jafe toog waxtaane ko ba yiw am lool day mooy la nga xam ne mooy la gën te na am mbokk julit suñu borom aaya yam wàcce ca baqara ca nisa ci toloq ci feneen ak feneen yépp ngiree sauvegarder siy biw la ci gën a jublu kon asulhu xayr ñu yéwénoo mooy la gën lool it yow mi yàlla dogal ab sëy ñëw ci sa loxo bu ndaw si wax mukk nga ne ko waa kii kay moom sëy boo rek nga ba ko seeti keneen wala waa ji wax nga ne waa kii kay sëy boo nga ba ko seeti keneen waaye fexeel noo yéwénee lay seen diggante wa sulhu xayr loolu borom bi wax wa sulhu xayr it yemul ci sëy kese mbokk doomu aadama yi suñu borom ne ne uhdiratil anfusu shuh doomu aadama yàlla da ko binde ci bëgge heure bu ngeen demee di xëccoo dara ngalla waay toog leen waxtaan ma Moodu bàyyi dara Samba bàyyi dara ñu am fu ñu daje ngeen yéwendoo ci loolu moo gënoon ngeen xëccoo ba mbir ma féete kenn waaye jur la nga xam ne mooy noonoo ak musiba loolu nag day aju ca contrat de travail ya ñee bokkoon ca location ya ñee bokkoon ca tool ya ñee bokkoon ca miraasu seen baay lu mu mën a doon so borom bi jalla waala mu ne ngeen toog waxtaan ba juboo day asulhu xayr loolu mooy la nga xam ne mooy la gën doonte ne bu ñuy def sulhu it mooy da ngay pare ngir bëgg jàmm ca yàlla tax mu leer na la lii sama àq la sama intérêt la nga fas yéene koo bàyyi ca yàlla tax loolu la ñuy tuddee as sulhu borom bi nag ne su ngeen rafetalee day ay daa di ragal yàlla yow soxna si nga rafetal sa digganteeg sa borom kër ragal yàlla ci li yàlla attee ci soxna waru koo taxawee waaye yow ko góor ki nga rafetal jëm ci sa soxna ragal yàlla ci atte yi mu atte ne nii la góor wara yore soxna xam leen ne yàlla day ku ñàkk kumpa la ci li ngeen di def te it mbokk heure bu jafe-jafe amee ngalawaay bàyyil xel lu bari ci doomu aadama yi dañuy jàpp ne ñoo nekk ci dëgg-dëgg ñoom la war a faral ba ku ci lay rek nga ne yaa ne yaa wax dëgg ku lay rek nga ne yaa nekk ci dëgg amma suñu borom jalla wa ala moom dañoo gis mu ne xam leen ne sëy bi ngeen ànd su dee seen baay xamul lu ci xew xarit yi xamuñu lu ci xew seen borom yàlla moom nee na li ngeen di def yépp moom amu ci la nga xamee ne nii benn kumpa borom bi bàyyi loolu daa di dellu siwaat ci góor ñi mboola seen mooy ñu am problème ak ñu amul problème mu ne nga la waay xam leen ne du ngeen man mukk ci yemele soxna yi ci lépp lu aju ci wàllu sëy ak lu ngeen xër xër ci loolu du ngeen ci mën a am kàttan loolu nag mbokk ba nga xamee ne nii am na loolu ba nga xamee ne nii am na dañoo gis ne doomu aadama bi yàlla ba muy wax ca bopp saar ba ne bu ngeen ragalee ne du ngeen maandu fa in wa in xiftum alla taadilu fa waxida maandu boobee suñu borom yàlla subhanahu wa taala di wax boole wu ci maanduk yemele leen ci mbëggeel yemele leen ci lépp waaye maandu ba yàlla di wax foofee mooy bu ngeen ragalee du ngeen mën a jox ku nekk ak xam amma nag loo jox jox say soxna ak do tey am koo xam ne nii moom nga ci gën a bëgg su ko defee ka nga xamee nii daa jàpp ne man kat sama borom kër sama wujj bi la gën a bëgg lam war a jëkk laaj boppam lu tax mu gën koo bëgg mbaa du sama wujj bi da koo déggal te man déggaluma ko mbaa du am na lu mu koy defal man duma ko ko defal ila axiri waaye itamit nga la waay nga daa di muñ muñ gu rafet déema rafetal te xam ne mboo ko xol day wëlbatiku xol nim mën a gën a bëggee tey doomu aadama mën naa benn bis rek kooku mu gënoon a bëgg mu gën koo bañ ci lu yàlla bind loolu mbokk day am xol day wëlbati ko kon yow rafetalal yéwénal sa diggante sa bopp waaye yow góor gi na am du ñàkk ko gën a bëgg ndax ka nga gën a bëgg da nga koy ànd ak moom rek ka ca des nga woon ko gannaaw bàyyi ko mu mel ne ku ñu wékk ca loolu mbokk dafa bari it góor ñu koy def ñoo xam ne bu ñu xisee ba am soxna boo xam ne bëgg nañ ko ka nga xam ne nii jàpp nañu bëgguñu ko dañ koy won gannaaw ba da ngay dégg témoignage ñu nekk ak seen soxna un an ci kër duñu bokk duñu bokk lal bal boo demoon ci àll beeg ak ñi ñuy tudde sax ay sëriñ ay at mën nañ koo nekk duñu bokk lal mbokk loolu dafa xaraam suñu borom yàlla araamal na ci góor nga nekk ak sa soxna ñeenti weer yu ngeen bokkul lal maa ngi jublu ci bokk lal ngeen siq la doom di mën a sosoo waxuma ngeen bokk tëdd ci kaw loolu kese loolu ñu bàyyi ci xel bu baax amma nag jël soxna bàyyi ko mu mel ni lu ñuy wékk nekkul ci kaw nekkul ci suuf mooy lu ñuy wékk nekkul kaw nekkul suuf loolee suñu borom yàlla bu leen ko def mu ci ñi war a gën a bàyyi xel nag suñu mbokk muudu muudu yi xam leen li ngeen di nekk jaamu yàlla gu rëy la génn sa réew tukki faggu alal waaye ewaay ñi fi bàyyi ay soxna xam leen ne ba lislaam di tëral day ci jamono Omar ibn Khattab dañ doon wax bépp ku tukki ngalawaay bu mu def six mois gannaaw këram ngalawaay six mois bu ko def mukk ci àll su ko defee yow muudi bi fi bàyyi soxna nga looy xamal ne foo rombi six mois xamal ne yaa ngi gàddu akam de heure bu la yàlla mayee pexe nga ñëw ci moom da ngaa war a def pexe ñëw ci moom su dee yàlla indi na ngantit nga xam ne gàddul nga ko aq di ko balu aq waaye lu bëri ci nit ñi waxuma six mois waaye six ans sax ñoom def ñu ko problème gis ngeen loolu nag mbokku ëpp naa def rawatina nag bu dee ne da nga faa yor soxna yow yaa ngi yor sa soxna yaa ngi faj sa aajo mën nam sax yaa ngi am ay doom kii moom nga bàyyi ko fii mu toog di xaar te day ci histoire bi ñu xam gis nañ ñoo xam ne nii xaar nañu seen dëkkër quinze ans gis nañ ñu ko xaar vingt ans gis naa sax koo xam ne nii fi mu toll passé ne vingt ans loolu mbokk loolu mbokk mbir la boo xam ne jéggi na dayoo soo demee ba jàpp na jàpp na ama pexe mum ñëw fase ko fase ko beneen góor jël ko bu ko beneen góor jëlil boo ñëwee nga jëlaat ko waaye bu ko bàyyi kal mu allaqa mi ngi noonu borom boobu nag waxoon ne in tuhsinu su ngeen rafetale mu daal di ci dolli ne wa in tuslihu su ngeen yéewéenale ngeen ragal yàlla ci gis ngeen borom bi toujours mi ngi baa mu ragal yàlla gi ndax mbokk sëy day toll foo xam ne bànneex ba day jeex te yéen ndaw ñu xam leen loolu je t'aime ak je nangam bànneex boobu paasewul un an de ñu noonu la ci des ay problème la su ko defee nag ngor moo fa des ak ragal yàlla waaye bu dul ngor ak yàlla ngor ngor ak ragal yàlla rek da ngay gis pour ngeen teqali ko day yomb lool kon yéwénal ku yéwal ragal yàlla suñu borom mu ne day ah faj na laaha gafur rahim te mbokk doomu aadama bi ak tooñ mun te ñàkk ci doomu aadama waaye boo ragalee sa borom kem talal kattan la nga xamee ne ni yow mënuloo ko soxal mënu ko yaa ngi jeng ci kii yaa ngi nangam nangam loolu yàlla dala koy baal léegi nag lii mooy solution waaw bu solution amul nag bu solution amul soo demoon tey ci lu mel ni diine catholique ñoom dañ naan mariage moom benn la on s'unit pour le mieux et le pire suñu xisee ba takk sëy bi jeex ne kenn du ko tas xanaa lañ mën a def mooy séparation de corps mooy gis nañu ne soxna saa ngay njaaloo ñu ne kon dañuy may nañ la bul fanaani fi ak moom waaye sëy bi kenn du ko tas mbokk loolu ak xatal la goo xam ne dañ koo xatal seen diine waaye suñu borom yàlla jëll wa ala mi xam ay jaamam nee na bu ñu demee nag ba yéwénoo munta am ngallaawaay nañ tas tas boobee buñ ko defee ku nekk yàlla dana la yaatalal dana la woomalal ci ak yaatoo ay bépp góor boo xam ne ragal na yàlla ca soxna sam amal problème yéwénal kemtalaal kattanam dema dem ba xam ne bunt yépp fëgg na ko dara muntul fexe ba sëy bi baax mu bàyyi ko te yàlla tax fokk yàlla wutal ko soxna su gën waaye soxna si it nga xam ne muñ na ci sëy bi gën jaa rafeti muñ ragal yàlla kemtalal kattanam bu bu bu fa jógee yàlla wutal ko góor boo xam ne dana méngoo ak moom lii mbokk da ngay gis digle bu yàlla digee xamal ne yow soxna si bu la ko yàlla defalul it mi ngi lay waajal lu gën loolu fuuf yow waa ji bu la ko yàlla defalul it mi ngi lay waajal lu lu gën loolu fuuf suñu boroom képp kum dig dana la jox wala mu jox la lu gën lam la dig wala ñu bàyyi ci xel bu baax te it borom bi gis nga waxul rek bu ñu teqali ko yuxni yuxni yuxni llahu yuxnihumullah aw yuxnillah waaye yàlla da cee boole min saatihi ndax yàlla mooy ki yaatu yàlla mooy ki xam yow xamuloo fan laa jëlee soxna xamoo yàlla xam na fan laa jëlee borom kër borom kër xamoo yàlla xam na borom bi mu ne it wa kaana allahu waasian xakima yàlla aji yàlla ci ay xéewalam ku xereñale ci lépp loo xam ne bëgg na koo def xam na nu mu koy defee yépp atte mit atte yu jub la mi ngi noonu Cheikh Ousmane
ولله ما في السماوات وما في الأرض ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله وإن تكفروا فإن لله ما في السماوات وما في الأرض وكان الله غنيا حميدا ولله ما في السماوات وما في الأرض وكفى بالله وكيلا إن يشأ يذهبكم أيها الناس ويأتي بآخرين وكان الله على ذلك قديرا من كان يريد ثواب الدنيا فعند الله ثواب الدنيا والآخرة وكان الله سميعا بصيرا barakallahu fikum suñu boroom jalla wa ala mu ne walillahi ma fi samawati wa ma fi l ard e way xam leen ne ñeel na yàlla lépp lu nekk ci asamaan yi ak suuf wa laqad wassayna alladina utu lkitaaba min qablikum ñun day dénkoon nañ ña jotoon téere ba jiitu leen wa iyaakum ak yéen ñii an ittaqullah lañ leen dénk mooy ragal leen yàlla wa in takfuru su ngeen weddee fa inna lillahi ma fi samawati wa ma fi l ard xam leen ne ñeel na yàlla mboolem lu nekk ci asamaani ak suuf wa kaana allahu ganiyan xamida yàlla day nekk na ko woomle nekk na koo xam ne kuy sant la xamid mooy ka yeyoo cant yépp xamidit day koo xam ne ay santam yu jote la la walillahi ma fi samawati wa ma fi l ard ñeel na yàlla lépp lu nekk ci kaw asamaan ak suuf wa kafa billahi wakila doy na ci yàlla rek muy ku ñuy wakkirloo ay di ko bàyyee si lépp in yasha yuzhibukum ayuha nnaas bu ko neexee day mu yóbbu leen yéen nit ñi wa yaati bi axarin mu indi ñeneen ñu dul yéen wa kaana allahu ala zalika qadira yàlla day ci loolu ku ci am kattan la man kaana yuridu sawaaba dunya koo xam ne daa bëgg payug adduna gi kese fa inda allahi sawaabu dunya wal axira xamal ne nekk na ca yàlla payug adduna ak payug alaxira wa kaana allahu samian basira yàlla day muy aji dégg lépp aji gis lépp jalla wa ala mbokk suñu boroom day wax ni xam leen ne mboolem ñi nekk ci kaw asamaan yi ak suuf moomeelu gi yàlla la mboolem li fi nekk moomeelug yàlla la loolu mbokk jullit buy xalaat ci loolu nga xalaat ne jant beeg weer wii day ak biddiw yi suñu borom moo ko sàkk jant baa ngi fenk nga koy gis jant baa ngi soo weer waa ngi nii di wër biddiw yaa ngi nii mu nekk ci parfaite organisation boo xamee ne nii nose gam nose dara ci retard du ci am kooku dana la jàngal kan mooy yàlla yàlla mooy ku màgg kooku yàlla mooy ku xereñe kooku nga xalaat xiiwal yi nga xam ne ni def na ko yàlla mi ñu may ndox mi ñuy naan may ñu oxygène bi ñuy noy génneel ñu géej gi ak la ca nekk ci ay façon jën sunu àll yi la ca nekk ci ay xéewal loolu lépp yàlla moo ko moom waaye nag nga gëmaat te ne yàlla moom day moo moom malaaka yi moo moom jinne yi moomam nit ñi ah kon yàlla moom mooma moom samay waajur nag yàlla leen moom sama sëriñ nag yàllaa ko moom kum mën a doon jaamu yàlla la su ko defee jullit war a gëm loolu gëm na da ngaa war a ànd ak jaami yàlla yi jaamu yàlla waaye amul kenn ci mbindaafanu yàlla yi koy jublu ci moom di ko jaamu borom boobu jàlla wa ala ne moo tax dénk nañu leen yéen ak ñi fi jiitu woon ci ay ci ay téere ne leen ragal leen yàlla te mbokk ragal yàlla googee gis nañu ni suñu borom nee na farataal naa ci yéen koor ngir ngeen ragal yàlla ragal yàlla du lenn lu dul njëlbeenu ragal yàlla mooy jàng ay ndigalam xam lan la yàlla bëgg ci yow nga góorgóorlu def ndigal ya bàyyi tere ya te yàlla tax façon taqwa fukki melokaan ak juróom-ñett borom xam-xam yi wax nañ ko ca waaye ci gàttal géntul génnul ñett yi koo xam ne nee na daa bëgg a ragal yàlla ca nanguwul a jàng diine yàlla ji day day nax boppam bokk jël benn ragal yàlla mooy jàng innama yaxsha allah min ibadihi al ulama fokk da ngay jàngi ñaareel ba la nga xam nga xam ne ñette ko siq xam-xamu diine ñette ko siq benn al maghdubi alayhim mooy ñi nga xam ne xam nañ ko ba pare lànk topp seen i bànneex yahud yaa ci jiitu ñaareel ba mooy wala dolin mooy ña nga xam ne ni dañoo réere xam-xam boobu mi ngi noonu ñetteel ba nag mooy ña baax mooy ña ko xam ba pare jëfe ko mi ngi noonu borom boobu subhanahu wa taala ne dénk nañ leen ngeen ragal yàlla niñ ko dénke woon ñi leen fi jiitu woon muy wane na kon ñun am na ñuy fi jiitu woon ñun ñu leen remplacer borom bi nag ne su ngeen weddee xam leen ne yàlla la ñeel mboolem nekk ci kaw asamaan yi ak nekk ci kaw suuf te yàlla mooy alxani mbokk suñ borom yàlla mooy ko woomle ba nga xamee ne nii ak a bëri ñu ñuy tudde kilifa diine ca xamuñu ku yàlla benn ci kilifa diine yi mas naa wax ne Sénégal li fi yàlla li mu am Sénégal bu ko xeebee perte da nga dégg inna lillahi wa inna ilayhi rajiun mbokk suñu borom yàlla jalla wa ala day yonent bi alayhi salaam nee na borom bi nee na ay yéen samay jaam bu doon te ne yéen jinne yi ak nit ñi da ngeen a daje woon ci xolu ki gën ci yéen kan moo gën ci ñun suñu yonent muhammad sallallahu alayhi wa sallam mboolem luy nit ak jinne mel ni muhammad sallallahu alayhi wa sallam yokkul sama nguur gi lu tol ni li puso di yokku ci géej waaye yéen samay jaam bu doon yéen nit ñi ak jinne yi da ngeen daje ci ci ci xolu ki yées ci yéen kan moo yées ci ñun ah la cheytaan cheytaan iblis firaw na ci ndogay iblis yi la yaa ngi rek waaye ki yées ci ñun ñun nit ak jinne moom mooy cheytaan waaye bu doon te ne ne nit ak jinne yëpp dañoo xëy xëy mel ne cheytaan wàññiwul ci sama ngóor gi lu mel ni ki amoon pusa samp ci géej gi la pusa bay wàññi ci géej gi yéen du ngeen wàññi loolu sama sama sama mbir mi kon allahu wal xani mboolem lim ñu sant suñu intérêt la mboolem lim ñu tere suñu intérêt la bàyyi ko suñu intérêt la waaye amul lenn lu mu koy yokk jalla wa ala ñàkk ko def amul lenn lu mu koy wàññi jalla wa ala allahu wal xani waaye it mooy alhamid alhamid mooy yooyoo cant ya loolu tax léegi lañ taxaw ci kanamam alhamdulillahi rabbil alamin arrahman arrahim maliki yawmiddin bés bu nekk ñu wax ko ko fukk yoon ak juróom-ñaar su nekk ñu sabbal ko suñu gannaaw julli waaye loolu it da ngay war a xam mooy alhamid yow mi ko saxal noo ko war a saxale mooy ci ñetti mbir yi benn nga xam ne wa ma bikum min ni'matin fa min allah bépp xiiwal bu ne ci yow wala ci keneen ci yàlla la jóge jël benn bi ñaareel ba salam min bii di tudd santuk yàlla ñetteel bi xiiwal googu nga delloo ko fa neex yàlla lii la ñuy sant yàlla de xéewalu nopp yi niñ koy sant yàlla fexeel bi bu ci déglu lu neexul yàlla bët yi bu ci seetaan lu neexul yàlla tànk yi bu ci dox lu neexul yàlla loxo yi bu ci liggéey lu neexul yàlla mi ngi noonu mboolem xéewal yi yàlla wërsëgal ci njaboot sàkku ci ngërëmal yàlla alal ji sàkku ci ngërëmal yàlla nii la ñuy sante yàlla yàlla moom nag boo ko santee moom it mooy alhamid moom it dana la sant fii ak yaa ngi yokk ay xéewalam mu lay dolli ci àdduna lu bokkul ak lam lay xaare alaxira alhamid borom boobu subhanahu wa taala baa mu waat te gis nga dana ko wax ñetti yoon ci passage bi ñu toll rek ñetti yoon mu ne xam leen ne ñeel na yàlla li nekk ci kaw asamaan ak nekk ci kaw suuf te doy na yàlla ku ñuy wakkiirloo ay yow mi naan sëñ yàlla ak sëñ diw mi ma yaakaar yàlla doy na bokk julit suñu borom mu ne alaysa allahu bi kaafin abda ndax yàlla warul doy ab jaamam ah kay sëñ taam bi ngay génn si kër ba fàtte woo bismillah tawakkaltu ala allah wala hawla wala quwwata illa billah na am mbokk julit mi ngi noonu julit mooy kiy wékk mbiram yépp ci yàlla njabootam alalam diineem bakkanam lépp lépp lépp da koo bàyyee yàlla xasbi xasbuna allahu wa ni'mal wakil yàlla doy nañu ci doy na ku ñuy wakkirloo du yaakaar ku dul yàlla du yaakaar pexeem du yaakaar kattanam day xam ne laa hawla wala quwwata illa billah kafa billahi wakila du ko boole kenn jalla wa ala borom boobu nag mu ne su ma neexee yóbbu leen yéen nit ñi indi ñeneen naam bi aaya yi di wàcc kañ la woon quatorze siècle ci gannaaw ñaata maas ñoo fi jaar loolu it mbokk bu lay dalay bàyyiloo xel yàlla moo la fi indi bis bu ko neexee mu jël la kañ la lay jël ndax dafa laa limité ne demal ko suuf soixante ans yi jeexee ma jël la la wallahi moo la fi indi waxtu woo ko neex moo lay jël waxtu woo ko neex demal doxantu armée lu yoof ngay xool bàmmeel yi da ngay gis ñu ne bébbee tel mi ngi noonu ne le 30 mars décédé le 30 mars yàggu leen ko gisee bébbe boo xam ne kër gu mu juddoo ca la dee un jour que une semaine que un an dix ans quarante ans cinquante ans cent ans la neex yàlla rek loolu it mu lay tiital yow doomu aadama sama dund gi nag nekkul sama loxo heure bu ko neexee mu yóbbu ma looloo tax ba bokk na ci liñ doon firee taqwa ko min Ali ibn Abi Talib moom la mu ko doon firee mooy alxawfi min aljalil wal qanaa xalaatu bil qalil wa istidaad bi yawmi rahil bokk na ci ki ragal yàlla dëgg-dëgg mooy fu mu toll rek jàpp ne tey la fu mu toll rek jàpp ne tey la ndax loolu la yonente bi alayhi salaam déggoon Abdullah ibn Omar boo xëyee bul jàpp ne ngoon dana la fi fekk ba ngoon jotee bul jàpp ne xëy dana la fi fekk ak bëri ndaw ñi nekk seen digg digg doole seen digg digg activité une heure de temps rek yàlla rey leen am déet une heure de temps rek yàlla rey leen mi ngi noonu ngi fàttali bilal sa benn jarbaat heure bi daaw rek yoro taxim am fu mu doon yóbbu bagage ñu dem muy ñu yéege bagage bi ci kaw affaire ba daanu dal ci kawam mu dee sur le coup ku nekk woon sa oto bi bi nga koy dawal di sant sa bagage une heure de temps après da ngay dee ndax dana xalaat loolu benn misaal la ci un million de de ni misaal yi ngeen xam in yasha yuzhibukum su ko neexee yóbbu leen waaye yéen mbokk dee betteel buñ ko xamul it leer nañu lenn moom moo dina sëñ bi fii ak téeméeri at ñun waa jàkk ci kenn du fi des am déet loolu moom leer nañu moom leer nañu moom fii ak cent ans moom amul kenn kenn kenn ci waa jàkk ji koy des fii insha allah borom boobu subhanahu wa taala nag ne moom bu ko neexee yóbbu leen indi ñeneen kon da ngeen fee jaar rek am nañu leen fi jiitu woon góorgóorlu leen bala ma leen di yóbbu borom bi nag ne koo xam ne daa bëgg moom payug àdduna kese kër këram ci àddunaam ci diineem àdduna rek ka tax a jóg suñu borom mu ne eh waaye xanaa xamu leen ni lépp lu ngeen yaakaar ci àdduna ak àllaaxira sama loxo la nekk waaw gars yi comme li nga yaakaar ci àdduna ci loxo yàlla la nekk ndax xellu na nga koy sàkkoo ci merum yàlla ndax xellu na nga koy sàkkoo ci mooy yàlla laa mbokk julit looy sàkku sàkku ko ci ragal yàlla munoo fexe mbono bono bono bon ba am lu la yàlla ba am lu la yàlla tuddalul kartal agresseur demal njaaloo ji demal def lu neex doo am lu dul lu yàlla tudd ci yow amma suñu borom yàlla subhanahu wa taala nag képp koo xam ne dafa bëgg alaxira moom la shakk ne borom bi dana ko fulal ak ful man kaana yuridu xarsa al axira nazid lahu fi xarsi su dee alaxira la tax a jóg yàlla yéwénal la adduna ak alaxira wala borom bi subhanahu wa taala di wax ci aaya yu bëri rawatina dig la bu dee sëngam baax na xayaatan tayiba borom boobu it ne mooy samian basira samian basir loolu muy boole jàmbi ci ñaari mbir allah mooy sami kon foo toll dee ko ñaan waaye allah muy basir kon fooy toll saxal ci li ko neex am déet comme moom mi ngi lay gis fexeel góor-góorlu defe ay ndigalam gannaaw ba nekk di ko ñaan ñaar yi la jullit di mën a boole doo sukkandiku mukk ci ñaan yàlla def la la neex doo sukkandiku kese say jëf jàpp ne moo lay texeel bal da ngay def lu baax di góorgóorlu si kémtalaal kattan gannaaw ba nag nga ñaan yàlla mu yërëm la àdduna ak alaxira yàlla na yàlla yërëm ñu àdduna yërëm ñu alaxira
يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين إن يكن غنيا أو فقيرا فالله أولى بهما فلا تتبعوا الهوى أن تعدلوا وإن تلووا أو تعرضوا فإن الله كان بما تعملون خبيرا يا أيها الذين آمنوا آمنوا بالله ورسوله والكتاب الذي نزل على رسوله والكتاب الذي نزل على رسوله والكتاب الذي أنزل من قبل ومن يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر فقد ضل ضلالا فقد ضل ضلالا بعيدا barakallahu fikum suñu borom jalla waala mu ne ya ayuha alladina amanu ee yéen ñi nga xam ne da ngeen a gëm kunu qawaamiina bil qist nekk leen aji taxaw ci maandute shuhadaa lillah doon aji seede ci yàlla tax walaw ala anfusikum doonte ne day seede ga day dellu ci seen kaw bakkan awil waalidayni wal aqrabin wala loo xam ne nii day dal ci seen waajur ya wala jegeñaale ya in yakun ganiyan aw faqira kookee nekk aji woomle waji aji ñàkk fallahu awla bihima ñoom ñépp yàlla gën a yey ci ñoom fala tattabi'u alhawa an taadilu e way bu leen topp la nga xam ne mooy bànneex ba bañ a doon ñuy maandu wa in talwu su dee ne nag da ngeen a jéng aw tuuridu wala ngeen dummooyu fa inna allaha kaana bima taamaluuna xabira seen borom yàlla day nekk na ci li ngeen di def ko ci ñàkk kumpa yaa ayuha allazina amanu e yéen ñi nga xam da ngeen a gëm aminu billahi wa rasuli gëm leen yàlla ca gëm yonentam wal kitaabi allazi nazzala ala rasuli ngeen gëm ci téere ba mu wàcce ca yonente ba wal kitaabi allazi anzala min qablu ak téere ba nga xam ne wàcce na ko mu jiitu wa man yakfur billahi wa malaikati ku weddi yàlla ak i malaakaam wa kutubihi wa rusuli weddi ay téeréem ak i yonentam wal yawmil axir weddi bis bu mujj ba day faqad dalla dalalan baida ku mel noonu day réer na réer goo xam ne réer gu sori la mi ngi noonu bokk suñu boroom def ñuy woo ci teru bi gën a tedd ñeel ñu e yéen ñi nga xam ne yéen a gëm loolu la ca topp xamal ne ndigal la boo xam ne soo ko deful rek sa ngëm matul xamal ne luy motti li ngëm la ñàkk koo def day wàññi ngëm ey yéen ñi nga xam ne da ngeen a gëm suñu borom mu ne ne nekk leen aje taxaw ci maandute mbokk suñu borom dafa bëgg maandute inna allaha ya'muru bil adl yàlla daa bëgg doomu aadama bi maandu ca ngeen nekk aji seede ca yàlla tax même bu doon te ne problème daa am nga dem ba xam ne yow mii kat yaa nekkul ci dëgg nga la way nangul loolu reconnaître ne yow yaa nekkul ci dëgg ngi noonu bokk naa ñu gën a doy waar ci kaw suuf ma américain yi waaye bokk na lu baax lu nekk ca ñoom mooy li ñu fonke dëgg heure boo xamee ne yi teel ngaa reconnaître wax dëgg pen yi nga waroon a am mën nañ ko wàññi bu baax a baax bokk na li ñu gën a bañ ñu contrôler fekk da ngay fen loolu day doubler say pen ala kulli xaal loolu dina leen te diitu kon bu mbir bi amee même bu dee ne yow yaay ka nga xamee ne nii yow la ñuy condamné nga la way nangul loolee balaa ñoo jël tooñ nga di ko jengal jëm ci keneen tey jii sa baay xam nga ne moo tooñ ngal la way reconnaître ne dëgg dëgg bàyyi yow yaay ci tooñ bàyyi yaa jël akki jàmbur jegeñaale mën na doon sa soxna mën na doon sa doom mën na doon nijaay bàjjan lu mën a doon ngal la way képp ko tooñ ci ñoom taxaw leen ci kanamam ngeen ne ko ah dëgg dëgg day yow yaa tooñ dellool aqu jàmbur te xadis la boo xam ne wax nañ leen ko fi démb rek yonent bi alayhi salaam ne sa mbokk bu tooñee dimbali ko suñ ko tooñee dimbali ko saxaaba yi na ko ki to ki ñu tooñ ñu dimbali ko xam nañ ko mais ki tooñ nag mun a téye leen ci loxoom ngeen na ko yaa tooñ mi nga noonu waaye duna rek yéen ñëpp ngeen jóg uti avocat yaag seeti procureur yaag nangam laa fexe leen ngeen xamal ko ne yaa tooñ àq bi nekk ci loxoom ngeen jël ko delloo ko boroom léeg-léeg it waa ji doon ko woomle koo xam ne yàgg na laa defal ay njëriñ yàgg na laa defal ay njëriñ nga jàpp ne su ma seedee contre moom njëriñ yooyu da koy dagg suñu borom mu ne déedéet nga moytu meram ba dajeeg merum yàlla xam ne yàlla gën a yey gannaaw ba faqiir bi nga jàpp ne ak kii kat ab faqiir la su ma ko seedee loolee da ngay gis ne lor gi day yokk ci moom kaza wa kaza wala kii amulu ma njëriñ kaza wa kaza suñu borom mu ne déedéet yow mi atte yemaleel faqiir ak ki am yow mi seede yemeleel faqir ak ñàkk ca xam leen ne ñoom ñëpp yàlla gën a yey ci ñoom mbokk da ngay gis ni suñu borom yàlla lii la wax mu ne nag bu leen topp mukk seeni bànneex ba bañ a maandu ba ko bànneex bu leen ko topp ba bañ a maandu amma nag bu dee ni ihtalu da ngeen a jëng mooy yow mii seede nga jëng yow mii atte nga jëng yow mii accusé nga jëng aw tuuridu wala ngeen dummóoyu attem yàlla bi yow mi xam dëgg war koo seede nga lànk bañ koo seede yow mi nga xam ne yaay attekat bi nga dummóoyu atte yàlla atte leneen lu dul yàlla xam leen ne day seen borom yàlla li ngeen di def moom dara ump ko ci te mbokk mi ngi noonu heure bu problème amee ña ko siq kay atte ña nga xam ne ay accusé lañu ak ñay seede ngal la waaye nañu xam ne tribunal boobu ñu nekk am na tribunal bu leen tiim mooy tribunal borom bi jàll waala te loolu loolu ngeen atte foofu ci tribunal bi yàlla dana leen ko attewaat bi ngeen dajee yowmal qiyaama loolu moo tax ba ngal la waay maandu leen mbokk lii la lislaam yare woon ay njabootam buur ak kudul buur gis nañu ci jamono Omar ibnul Xataab kii du Omar ibnul As moo tijji woon Misra ba tey bàmmeele mi ngi foofu rahimahu radiallahu anhu am jàkka ji ñuy war a yokk jumaa ji benn kër chrétien moo nekk ci wetu jumaa ji ñu woo soxna si chrétien bi ne ko dañoo bëgg nga jaay ñu sa kër gi ñu yokk ko jumaa ji soxna si bañ ñu wax wax soxna si bañ Omar ibn Laas xëy rek na gaa yi toj leen kër gi ñu toj kër gi yokk jumaa ji soxna si it boo boolewu ci coow duggul ci lislaam waaye xam nañ lan mooy lislaam moom it daal di jël gileemam dem ba Madina fekk fa Omar ibnul Xattaab netti la ko islam bi ni mu demee Omar am nu mu ko booleel ne ko bu ngeen demee Omar ibnul As nañu toj jàkka ji delloo soxna si këram tabax ku nu gën nam meloon ci koo xam ne ab chrétien la jigéen la ndax gaa yi maandu tëggu mel nii gis nañ ko feneen la mi ngi noonu bañu demee bañ demee ba dogg ci loolu te la soxna si doog a nangu ne bàyyee ne këram jàkka ji waaye li muy maandu ci lislaam su ko defee lu bari ci sun ndaw ñi tey dañu jàpp ne kii ab yéeféer luñ ko def dagan na bari na suñu ndaw yu nekk bitim réew ñii ñoo sonaloon sëñ bi ñii ñoo yéeféer yi ñooñu seen maam yi ñooñu colonisé woon dajeeg ab tubaab dóor korpañ mu daanu nga jël saag bi këf daw mbokk yooyu déedéet yow bul tooñ heure bu atte amee it na doon yéeféer la na doon julit la na ngeen wax maandute ci matagul semaine laa leen di nettali attali bi atte bi doxoon diggante Ali ibn Abi Talib amirul muminin ak benn yahud te Shurayh al qadi amirul muminin contre un yahud gis ngeen borom boobu nag subhanahu wa taala ne ay yéen ñi nga xam ne da ngeen a gëm gëm leen yàlla te gëm yeneen ci yàlla xanaa mbokk yéen ñi gëm-gëm leen yàlla loolu li muy firi mbokk xam leen ne gëm yàlla day yokk di wàññeeku loo gën a xam yàlla sa ngëm di yokkooku luñ la gën a jàngal alquran sa ngëm di yokk wa ida tuliyat alayhim ayatuhu zaadathum imana su ko defee yow xamal ne ndawal julit lu bari gëmagoo ko ci yàlla de suñu borom mooy borom asmaul husna wa sifatul ula borom tur yi kawe yi borom melokaan yi kawe yi loolu ci iman la bokk mboolem sharia ci iman la bokk yeneen tabaay som daneen la ci gën a kawe mooy la ilaha illallah la ci gën a suufe mooy dindi luy lor ci yoon bi lépp luy njàngale sharia ci iman la bokk loolu it mu ñuy delloo ci lañ ubbee woon mooy jàng leen ba xam li yàlla bëgg bokk njàng mooy yokk ngëm njàng mooy tax a gëm gannaaw ba gëm yeneen ci yàlla bi même chose mooy sunna yeneen bi sallallahu alayhi wa sallam tey jii doomu aadama yi lu ñu xam ci sunna ñu bëri ci ñoom un centième ba sax xamuñu ko waaye góor-góorlu leen jàng sunna xam ko ca gëm sunna xam ne lu yonent bi wax moog lu yàlla wax ñoo yem xadis bu wér moog alquran ñoo yem léeg-léeg sax ñu jël xadis bu wér teg ci kaw alquran ngi noonu tey jii alquran lu mu ñu wax ku njaaloo nañ ko dóor téeméeri yar su ma see sëy nag luñ koy def di dañ koy reyee waay loolu ñu ngi fu ñu ko jëlee ñu ngi ko jëlee ci xadis yu wér jóge ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam yoo xam ne nii mi ngi noonu donc te na am na ñu ne alquran buñ doon jàngala man suuxal ko waaye lu wér mooy sunna moo ko saxal borom boobu subhanahu wa taala mu ne gëm leen ni téere bi ñu wàcce ci yonente yàlla bi ak téere yi ñu wàcce lu jiitu mi ngi noonu la nga xam ne moom mooy nazala mooy lu ñu wàcce nànk-nànk anzala mooy lu ñu wàcce benn yoon alquran nag ñaar yooyu yépp la boole yeneen téere yi benn yoon la ko yàlla wàcc anzala tawraat ak injil ak zabur ak yépp benn yoon la wàcc ci seen yonent amma alquran benn yoon la wàcc jóge ci laxul mahfuz ñu indi ko baytul izza ci asabaanu benneel ci laylatul qadr waaye gannaaw ba yàlla di ko wàccee nànk nànk diiru vingt trois ans mi ngi noonu nazzalnaahu tanzila mi ngi noonu borom bi mu ne gëm leen téere yu jëkk yi lu ñu leen di gëmee mooy dañuy gëm ne lu amoon la duñu mel mukk ne yahud yi naan laysa ci nasara ala shay'in nas na na na nasara yi naan laysa ci yahud ala shay ah kay ñun dañuy gëm ne yahud yi ñi ngi yoroon téere bu jóge asamaan bépp yahud boo xam ne gëm nga téere boobee dee ca bokkaale woo ak yàlla dara te bi ngay dee xamoo ne yàlla yónni ne yeneen yàlla muhammad àddina nga jëm loolu lañ gëm bépp nasaraan boo xam ne injil ba jóge ci yàlla moom la gëmoon topp ko te yëgul ne yàlla yónni ne muhammad sallallahu alayhi wa sallam ba muy dee bokkaaliwul ak yàlla dara àjjana la jëm ñun li lañ gëm amma nag yow julit bi gëm ne yàlla yónni ne muhammad sallallahu alayhi wa sallam da ngay gëm ne yooyu téere lu yàlla wàcce woon nag jeex na la ngay gëm te topp ko mooy alquranul karim mi ngi noonu téere bi mu wàcc ci yonentam sallallahu alayhi wa sallam borom bi nag ne ku weddi yàlla weddi ay malaakaam ak yonentam ak téereem ak alaxira ku mel ni day moo réer réer goo xam ne nii réer gu sore sore sore sore sore la te loolu mbokk li yàlla wax ku dajale weddi li ku ci weddi benn rek yaa ki weddi lépp yam ki weddi benn yonent moo ki weddi yonent yëpp yam te xam leen ne bokk na ci weddi yonent yi dolli ci ku ci bokkul yaa ngi dégg suñu borom bu indee ab listam ne ñii ñooy samay yonent yow nga gëm ne déedéet masamba mii ci la bokk kon yow gëmul yàlla wax ki ci génne benn ne kii gëmuma ko comme yahud yu bon yi nga xam ne gëmuñu ne Suleymaan yonente la na gëmuñu ne Isa ibnu ibnu Maryam yonente la ila axiri yow mii ci dolli benn yéen a yem su ko defee mi ngi noonu yàlla na yàlla dépp de suñu ngëm ak nam ko gërëmee
إن الذين آمنوا ثم كفروا ثم آمنوا ثم كفروا ثم ازدادوا كفرا ثم ازدادوا كفرا لم يكن الله ليغفر لهم ولا ليهديهم سبيلا بشر المنافقين بأن لهم عذابا أليما الذين يتخذون الكافرين أولياء من دون المؤمنين أيبتغون عندهم العزة فإن العزة لله جميعا وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم فلا تقعدوا معهم حتى حتى يخوضوا في حديث غيره إنكم إذا مثلهم إن الله جامع المنافقين والكافرين في جهنم جميعا بارك الله فيكم سنبرمني إن الذين آمنوا ثم كفروا ñinga xamne dañoo gëm gannaaw ba ñu weddi summa amanu summa kafaru gannaaw ba ñu gëmaat daa di weddi summa zdaadu kufra gannaaw ba ñu daa di nag sax dolleeku kéeféer ba baa ñuy dajak yàlla lam yakun illahu li yaxfira lahum du nekk yàlla mukk mu leen di jéggal wala li yahdiyahum sabila wala mu leen di jubal ci aw yoon bashiril munafiqina eway bégalal munafiqi bi anna lahum azaban alima te dana leen ñeel mbugal mu tar lool allazina yattaqizuna alkafirina ña nga xam ne ñooy jàpp yéefér ya awliyaa min duni almuminin di leen def ay féete gannaaw julit ña ayabtaxuuna indahum alizza ama ndax dañuy sàkku ci ñoom lii di teddaange fa inna al izzata lillahi jamia teddaange mboola seen mi ngi nekk ci lo ci lo ci yàlla jalla wa ala yàlla la ñeel teddaange mboola seen wa qad nazzala alaykum fi lkitab donte ne wàcce woon nañ ci yéen ci téere bi an iza sami'tum ayati llahi yukfaru biha ne bu ngeen déggee aaya yàlla yi ñu koy weddi wa yustahza'u biha ak di ko saboote fala taqudu ma'ahum bu leen toog mukk di ànd ak ñoom hatta yaxuudu fi hadisin gayri ba baa ñuy nekk di xuus di tabbi ci beneen wax bu dul boobe innakum izam misluhum su dee loolu day def leen ko kon yéen ak ñoom yéen a yem képp ca bakkaar ba inna allaha jaami'ul munafiqin yàlla day moom mooy boole nafiqiya wal kafirina fi jahannama jami'a mook kafir ya dana leen boole tabbal ci biir sawara mboole seen mi ngi noonu mbokk suñu boroom day wax fii rek ñi nga xam ne dañuy gëm wëlbatiku dellu gannaaw te it mbokk julit jamono bii niñ ci bi alayhi salaam di woote ngëm jafe woon na lool ñu bari ci doomu aadama yi dañ daan gëm gannaaw ba ay pression tax ñu dellu gannaaw waaye suñu borom yàlla ci mbaaxam mu ne ñi nga xam ne day dañoo gëm ba pare weddi gëmaat ba pare weddi xanaa kay bu doon atte doomu aadama dag naan kii kay moom si fini yàlla alag na ko waaye suñu borom mu ne summa zdaadu kufra loolu mooy lan mooy ñu sax ci kéeféer ga ba baa ñuy dee waaye bu ñu delluwaatoon gannaaw it yàlla subhanahu wa taala bu ñu deeyaalee kéeféer yàlla bal leen loolu mbokk mooy mbaaxu yàlla jalla wa ala moo tax jëf yépp mi ngi nekk ca la nga xam ne moo ca mujj loolu it danañu dolli ñu ñaanal suñu ki ñuy ñaanal fi lu bari suñu mbokk El Hadj Fadior Gueye dafa nekk ak benn collègue de service am mu nekk chrétien ñoo bokk benn bureau ci Sénélec mi ngi tuddoon Badiane yàlla dogal ñuy waxtaan ci diine ba kooku nangoo tuub ñu dem tuub dugg ci lislaam El Hadj Fadior dem congé bi ñemee congé mbokk chrétien yi nekk foofu def pression ba génnewaat ko delloowaat ko ci kéefër yàlla dogal bi mu ñëwaatee moom it insisté waat ñuy wax di wax ba Badiane duggaat ci biir lislaam waaye mbokk am na itam mi ngi dëkkoon fi wetu juma 17 boo koy gisee ak yërëm yu weex ak muuraayam ñu ne la kii mës naa nekk chrétien da ngay waat wedd no amul kon it loolu mbokk dañu ciy woon tey jii mën nga am benn xaritu chrétien ñu naxtaan ko ba mu tuub te chrétiens yi léegi amuñu chance donc chrétiens yu jëkk ya ñiñ daan nekk dañu leen daan xamal ne diine dëgg mooy diine l'islam amaa ñi ci tey jàpp nañ ne diine yëpp a yem yaa ngi dégg ba créé nañ ñu seet diine Abraham buy wane ne diine yëpp a yem mbokk loolu il rend une mauvaise service un mauvais service te ña nga xam ne nii ñoo ñoo ñooy seen xarit yooyu heure bu amee mbokk chrétien xaritu chrétien dëkkandoo chrétien loo man ci naxanteeg moom waar ko ngir ngeen ànd dugg ci lislaam ànd dem aljanna nga la way def ko koo ci yëg ni itamit dafa duggoon ci lislaam ba pare génn lan moo tax mu génn ban pression moo tax mu génn nañ dem jege ko daal di fexe ba naxante ak moom delloo ko ci gannaaw bari nañ ci bëri intérêt àdduna rek moo tax ñu ñàkk sama benn mbokk nee na dañoo dem côté Malika fekk fa benn pël chrétien mu ne ko way pël chrétien mu ne ko i maa ngi nekk fii sama coono kenn dum faadooma labbe bi bis bu ne mu ñëw may ma meew may ma may ma kaalis mu nekk chrétien yaa ngi dégg xam nga xam nga kooku xamul dara ci christianisme xamul ci dara waaye comme kii mi ngi koy jox rek kooku da ngay gis kooku nag boo amoon dëkk ak ay jurit yoo xam ne dañuy dem naka labbi bu doon jox ñu ko jox duubalam kooku ñu delluwaat nekk jullit ah kay kon suñu borom yàlla subhanahu wa taala mu ne gallaway xam leen ni góorgóorlu leen ci loolu ñooñu nga xam ne ñu dellu ci kéeféer borom boobu subhanahu wa taala nag mu ne béegalal naafiq yi nga xam ne ñoom dana leen ñeen bëggal bu tar mooy ko naafiq mooy kan naafiq moom mooy koo xam ne musul gëm wala ba mu gëm it teel na caa génn ba pare nag dugg ci biir jullit ñi moom moom feeñulul génn ci lislaam waaye mi ngi dugg ci biir jullit ñi ànd ak ñoom te fekk ak naafiq la borom bi mu ne mooy ñi nga xam ne dañuy jël yéefére def leen ay péete yéefére la ñuy àndal ci suuf ñoom la ñuy wone seen tefeel ci suuf suñu borom mu ne ndax dañuy sàkku ci ñoom ak teddaange e waaye dañoo fàtte ne teddaange gi yépp ci yàlla la nekk loolu comme niñ ko fi doon waxee rek suñu am kenn ci suñu ndawi réew ko bokk ci ñuy xëccoo réew mi taxaw presse internationale wër ko mu yëkk ci diine yahud suufeel diine lislaam ne nit ñi bu ñu xoolee sax dëgg-dëggi aj fii borom bi wax bakka mi ngi gën a yey la nga xam ne mur lamentation waaye nag de toute façon bu ulama wu yahud yi ak julit ñi daje danaa leen wax fu ñu war a aju ji gis ngeen mbokk dara kii ci loolu wax wax ju ñaaw ci suñu yonente sallallahu alayhi wasallam wax ju ñaaw ci hajara yoo xam ne bëgguma ko sax di nettali lan moo ko ci woon jàpp ne rek xëy na tubaab bi bu ñu amee avalam dana mos rek président keroog la torox jëm suuf ba suñuy jamonoy tey ji mi mi ngi noonu loolu it benn leçon la war a doon à jeunesse bi yëpp galawaay yéen jeune heure boo nekkee un intellectuel brillant teel a génne say études da ngay gis ay club yu bari yu ñuy nekk ci franc-maçonnerie façon tour bu ne nekk am nañ ko xale yu mel noonu la ñuy jéem a recruter proposer leen des bourses yóbbu leen jàngal leen lan koy jëndee lu ci bëri mooy jaay sa diine ngalawaay bu leen dugg ci loolu politique bi képp koo xamee ni nii la mu nekkee merum yàlla la dem ànd ak moom pour falu ngalawaay bu mu la ca fekk nguur gi ci loxo yàlla la nekk wallahi sun président bi nga xam ne moo ñu jiite yàlla na yàlla sàmm ñu sàmm ko bu ñu xoolee un an ci gannaaw ku ko ne woon ndax da nga nekk président de la république mën nam sax du ko xalaat yéen ñëpp xam ngeen li ko jëlee li ko jëlee parti ba mu nekkoon du coobareem mais ba ko fa yàlla na mee jëlee président créé na ko problème ñu dàq ko ca parti ba nekkate foofu la ko yàlla nar a jëlee yóbbu ko kon al nguur ci loxo yàlla la nekk fexeel ba boo koy wut jaaral ci yoon bi rek soo ko amee dafa ko sa war a gar soo ko amul sa jaan wàcc na jeex na loolu mooy problème bi borom bi nag ne xam leen teddaange lépp te loxo yàlla la nekk borom bi nag mu ne ñii ngeen di dem di laqatu di jëm ci ñoom et pourtant day ñun wàcce woon nañ ci téere bi ne fu ngeen toog ak ñuy weddi aaya yàlla yi di sabooti dina yàlla ji bu leen toogandoo ak ñoom su ngeen toogandoo ak ñoom rek yéen a yem loolu tax ba yow julit gàllawaay kii de sama xarit la daf maa invité seen daje daje ba mooy lan su ñu demee da ngay gis ne suñ diw la ñuy jël di teg ci kaw yonent yàlla di teg ci kaw yàlla di duural yàlla ba yàlla li yàlla defal sëñ diw ba yàlla yónnee yonent bi ba yàlla defee nangam jataay boobu julit amul droit di toog foofu bépp jataay bu ñuy jalgatee alquran ak sunna xaraam na nga toog foofu yow julit loolu it ñu koy waxee ci jataay bi loolu lañ koy waxee ci ci li gën a bon mooy ay ndaw yu julit ñoo xam ne dañuy neen dañuy théâtre bu ñuy théâtre lu ñuy utiliser diine l'islam rawate nag ñu ngi ko daan gën a def heure ndogo gis ay mayekat ñu ñëw di wax ci diine ji di wax ci yàlla mi ngi noonu loolee mbokk daganul ñuy toog di ko seetaan bépp place bu ñuy mooy yàlla daganul jurit di fa toog moo tax yonente bi alayhi salaam ni ki gëm yàlla gëm yenente yàlla taabal boo xam ne ña ko wër am ne ku cay naan sàngara yu jógal dem bul toog ak kuy naan sàngara ci benn taabal jamono omar ibn abdul abdul aziz ba am na xale am na ñuñ jàpp ñu doon naan sàngara am benn jeune caamin daal di ne mais man yàlla xam ne ne damaa woor yàlla xam ne ne damaa woor bi gars yi demee ko Omar ibn Aziz ne ko ah mais du day ñu ñeneen jàpp mais ki daa woor mu ne jëkkaleen koo duma moom ci boppam jëkkaleen koo duma nan ngay woore ba pare du toog kuy naan sangara ala kulli xaal yéen ndaw ñi ngeen bàyyi xel ci loolu baax daanaka langue yi ci àdduna yépp dëppoo nañ ci ne wax ma ña ngay toogal ma wax la yaay kan doomu aadama boo bëgg a xam ah xoolal rek mi ngi noonu boo xoolee rek kii yam ku may ñoom yi àndal nga xam ko ba tax yonent bi alayhi salaam daan ñu wax ne toog ak nit ñu baax mi ngi mel ne nga fekkoon jaaykatu parfum nga dem toog ci moom imma nga jënd wala mu ne la mosol bi ba gis ngeen jaaykatu parfum nit ñu gaawee ci loolu xencul bi gis ngeen wala boog nga jëlee fi xet gu neex loolu mooy toog ak ku baax imma ngay dégg ci moom lu baax ngay dégg ci moom gis melokaan bu baax ila axiri dalam ak yooyu sax mën na laa jëriñ mu ne nag moytu leen di ànd ak ko bon nee na ànd ak ko bon mi ngi mel ne kuy demoon ci mbaaru tëgg toog foofee bokk tëgg yooyu nga xam ni or bi ñuy defar ak xaalis bi dañuy upp seen taal yi ba mu ba mu yànji upp googu nag ferñeent yi dañuy naaw mu ne nag soo toogee ak ñoom imma mu lakk sa yére wala imma nga jëlee fi xet gu naqari koo yàgg àndal rek yaa ngi jël ci moom mu neex la ak mu naqari la kon fexeel ba yow ndawal julit xoolal ña ngay àndal mi ngi noonu bul ànd ak lu dul ko baax yaa ayuha allazina amanu taqullaha wa kunu maa sadiqin heure booy ànd àndal ak ñu baax borom boobu nag subhanahu wa taala ne xam leen ni yéen nafiq yi ak yéeféer yi ñoom la yàlla boole ci sawara mi ngi noonu jahannama jamia nafiq bi yàlla di wax fii it moom mooy nafiqu pas-pas mooy ñi nga xam ne dañoo sol mbubbum julit ànd ak julit ñi te jàkka ja ca at ga waaye nekkuñu loo xam ne nii dañoo gëm mu bokkoo bokkul ak naafiq ci wàllu jëf loolu moom ay bàkkaar la yoo xam ne nii yàlla mën na la caa mbugal yàlla mën na la caa baal doonte ne julit ñaar yépp la war a moytu yal na yàlla may ñu al imaanu saxiix mooy ngëm gu wér dëpp la ñu ak amalu saalix mooy jëf ju mu gërëm wa sallallahu wa sallam ala nabina muhammad wa alihi wa sahbihi ajmain lu tax mu ne bashiril munafiqin suñu borom mu ne bégalal naafiq yi ci ne mbugal mu tar moo leen di xaar naafiq bu demee àllaaxira mbég ma gën a rëy ba mu fay am mooy sawara ba nga xam ne ca lay tàbb doonte ne ne la nga xam ne albashir moom mooy deru doomu aadama doomu aadama bi su bégee dafay am jeexital ci moom su kontaan su su mer yi dafa am jeexital ci moom da ngay gis ki mer di lox looloo tax ba la nga xam ne moom mooy bashir alquran di ko jëfee ci lu neex bashiril muminin ak bashiril munafiqin ala kulli xaal xamal ne am naafiq la gën a la gën a suufee da la koy xaar muy mbugal mu tar bokkul ak nag rëbbum yàlla ma ko fay xaar ak merum yàlla ma ko fay xaar wallahu subhanahu wa taala aalam naam naam bismillah naam naam waa ji nga xam ne dafa nekkoon ci Europe léegi nag ndekete heure ndogu yi avancé na teg na une heure de temps moom yëgu ci dara heure ba mu jàppoon dog jot na rek mu daal di doon koo xam ne nii ko dog waaw kooku day liñ ci wax ci moom mooy mu fay bis ba moo gën ci moom loolu la ñuy wax ci moom donte ne am na borom xam-xam yoo xam ne dañ naan ki nga xam ne dogul ci shak dafa dog ci yaqiin jàpp ne waxtu bi jot na mu dog ku mel noonu kooram baaxul kooram baax na ndax ñu ne mas na am ci jamono yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ñoo xam ne dañuy toog ba jàpp ne mu lëndëm ñu ne jant bi sono ba ñu dog ba pare jant bi ne señeet ñu ne ah jant bi sowlu woon de mais ñu ne yonent boo ko leen fay leen bis bi waaye nag lu bëri ci fuqaha yi ñoom dañ naan na fay bis ba looloo tax la gën a mucc ci ayib daal lañ koy wax mooy fayal bis bi bu ko fayul it mu xam ne maadaama ci yaqin la dog loolee amu ca bakkaar wallahu subhanahu wa taala aalam na ah ah ah waaw waaw waaw une heure de temps de plus heure bi léegi nga xam ne vingt heures la war a doon ah waaw waaw naam naam comme ni mu ko waxee loolu lu yomba am la ndaxte tey da ngay gis dafa am ñoom heure été ak hiver bi bu dee ay France ak yu demee noonu dañuy changer seen i heure suñ demee ba heure bi changé dañuy xëy benn jour rek ñu ne yokk nañ une heure de temps su ko defee yooyu mi nga xam ne naka jekk yaa ngi daan dog sept heures na am ñu ne yokk nañ une heure de temps mais day fekk ne yow bi sept heures di jot six heures moo jot kon yow boo dogee sept heures six heures nga dog kon it naka noonu heure boo xamee ne nii am nga loolu da nga war a delloo sa heure te it fillahi alhamdu yàlla yombal ay logiciels yoo xam ne nii tey suñu jamonoy tey bi nit ñi xam nañ ci ay ay wax yu ay ay ay yu bëri su dee ne logiciels yooyu dafay topp changement d'état bi dana yomb waaye daal bu toppul bu dee yëg nga ne nekk nga ci état boo xam ne dañuy changer seen horaire une heure de temps heure bu koor bi jotee war ngaa def gëstu dëgg dëgg dëgg ndax man horaire horaire bi mooy sukkandiku nii topp na changement boobu wala topp ko su ko toppul it nga xam ne war ngaa dolli ah naam mi ngi noonu waaw mi ngi noonu mi ngi noonu c'est ça ala kulli xaal daal jullit moom heure bu demee ba am sikk sàkk dafay fagaru gën jaa màggi fagaroom amma nag boo defee sa kémtalal kattan lépp nga xool la gën a pekk nga def ko insha allah yàlla nangul la wallahu subhanahu wa taala alam waaw ñu mujj ci suñu mag bi waaw naam waaw waaw ci France baax na kon jasaak jasaakumulahu xayran waaw ñu waaw ñu ngi ñun ñu ngi sant yàlla bu baax ba problème boobu amuñu ko xam leen mbokk ñun fi ñu yàlla placé dañoo nekk presque ci liñ tuddee équateur guddi yu gudd gudd yooyu wala ah, bëccëg yu gudd gudd yooyu amuñu ko xamal ne Europe am na fa ñoo xam ne léeg-léeg ñu woor 16 heures de temps 17 heures de temps yaa ngi dégg ñun nag fële alhamdulilah defal nañu sunu temps dafa xaw a équilibré daanaka guddeeg bëccëg li ñuy duggante après une heure de temps la mais boo demoon ay dëkk yenn yi waxuma sax na extrémité yi am na ñoo xam ne moom day dem ba ay vingt heures de temps waaye xatta Europe gi ngeen miin rek léeg-léeg guddi gi lekk ci bëccëg bi quatre heures de temps léeg-léeg waa soleil de minuit mi ngi noonu ay Suède bi dema noonu yoo xam ne nii ñun wi rek da ngay gis ne fajar jot na ala kulli xaal ñun fi ñu yàlla placé daal falilahi alhamdu an suñ jaam sedd yu tar yaa tar yëguñu fa tàngaay yu tar yaa tar yëguñu fa alhamdulilahi rabbil alamin mi ngi noonu